dikkati na Amadou Ba day mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle 2024 bi tribune yéene kay nan man dëgg la waaye xanaa ma fàttaleeti rek ne Amadou Ba mii nga xam ne mooy premier ministre bu Sénégal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar atub 2022 lañ ko tabb ca primature xam nga wolof Njaay dafa naan ku la jox ndékki bu la diggee añ nga war koo gëm waaye ba mii ma ne la daf noo compalu sax as mburu ba cay rax bër mbaalu tàng ndékki li matul kon boo ñu diggee añ ak reer ñu jox la suñu réew mii dang ñuy nax yéene kaay bi bi naan at Amadou am ko ci bopp bopp réew mi lajj sur lajj lajj sur lajj Amadou lu mu làmb mu yàq mu dem seeti beneen xam nga tey jii diggante daaw ak bu ñu nee Sénégal tey la màngaan gi gën a bëri tey la faatu yi gën a bëri ci waax yi ndaw yi nag amatuñu yaakaar seen réew jéem a dem bitim réew yemale faatu wala egg loolee gënal leen toog ci misère gii nga xam ne mi ngi ci réew mi te ñu ne Amadou Ba mooy premier ministre premier ministre boobu ñu bëgg mu nekk suñu président yaa problème tribune ni ma xoolal mbënn mi ndakaaru moom bu wisee ma ni am na ñoo xam ne ndoxu ay ati ati at mi mi ngi ci seen koñ suñ la yëkkatee war laa teg feneen France am na ñoo xam ni bañ leen yëkkatee ba tey ñu ngi ci location ay at canalisation yi baaxul ndoxum taw lu ko yóbbu géej ci ndakaaru jël joob Sangomar nga xam ni mooy capital bi jafe-jafe la waa biir réew mi moom lu ñu war a wax Amadou amul saafara ci inondation mi ngeen di dañ koy jox réew mi nañ dem tribune yéene kaay naan man boole koog réew moo xam ni lépp cher location diggante daawa ak ren mar day taali looy lekk bu daan jër juróom léegi mi ngi ci ñaar fukk ndox ak daal di cher ba jéggi dayoo toll nii dafa toog di xaar yàlla ñëw ci kawam ngeen ne Amadou Ba mi waxoon mu joyanti réew mi ba lii lépp soppeeku muy gën di tar ngeen di jox réew mi aca turbine naan pareegu ma de ca gouvernement de combat ba Amadou Ba daf calag ji las bajaan naan dañoo xamul ndaw yi rek gis nga ndawuk Sénégal fi mu ne benn objectif daal la ñu am fenn leen teg seen kët mooy fexe bañ a nga xam ne dañoo tële dootuñu leen jiiteeti El Hadji Talla journaliste naan président Macky Sall dafa mel ni ku dóor xeer ci oomam bu xale yi naan président Macky Sall du juum El Hadji Talla naan Sall moo juum choix Amadou Ba bi baaxul mooy dëgg dafa def erreur moom président Macky Sall na ko nangu 24 heures yéen a kaay jox kàddu Bougane Gueye Dany mu naan président Macky Sall mooy ki juumul xam nga Sall jéemoon na fi laaj ñetteel bi mandaa sénégalais yi naan ko wax ko seet yow président Macky Sall boo waxee troisième balaa nga yegg ñoŋ sa kaw mu arrière daw deuxième fi mu ne nii nag Amadou Ba ngir mu dëggal dëgg dëgg ñetteel bi mandaa moom président Macky Sall moom jiital gëm sa bopp naan leen waaye yomb na ngir xeex bennoo bokk yaakaar nañu def ñaar ba ñett say yoo xam ne yu am doole la nag sunu yaakaar buñ ko wékk ci ñenn ci opposants yi de muy opposants yi nga xam ne lu ñu am ba fi ne nii système bee leen ko may ndax buñ damee ci ñaareelu wërngal bi deuxième tour bugaan gay dani na ñoo ñuy war kay ànd ak système ba gay nga naan leen ku leen joxul ndékki di leen dig añ bu leen ko gëm ñam leen ñu yees ñi ngeen seet ndax nag man sama bëgg-bëgg ci réew mi moom moo di teggil sénégalais yi bépp ak jafe-jafe naqar boo xam ne am nan ko fexe ba sénégalais yi tolloo doole seen biir réew kumba am ndaye kumba amul nday gi jeex ci réew mi numbelaan néew fi doole doon tooñ jeex ci réew mi sénégalais yi naan tex tex may ree boole nekk Dakar ak dëkk ci biir réew mi tolloo te génn ak feem daal la ñu àndal ci présidentielle bi bugaan naan fexe ba la ñuy woote wuyoo ko lépp lu ñu wax ñu mën caa teg baaraam suñu programme bi la ñu yéene suñu bopp ñu xam ne sénégalais yi ñoom lañ ko yéene suñu yéene du lenn lu dul dekkalaat yaakaar ci réewum senegal dekkalaat yaakaar ci sénégalais yi waaye tam taxawal ak politique économique boo xam ne du doon ay digee du doon ay naxee mbaay lu ñuy gis nii la janoog moom nii jaxaran leen fa yéene kaay naan man en tout cas tasaarooga moom jéem ko éviter Daouda Diallo nee na day jàppale Amadou Ba waaye wax ji wax ji mooy ndax yegg na ci xolam ndax Abdoulaye wax na ba jeexal te tuddul benn yoon turub Amadou Ba le point naan coow li coow li mooy dikkaatuk Abdoulaye Daouda Diallo bii président Macky Sall moo ko waral ndax nag moo ko woo fexe ba mbir mi am loo ci mën ci déggit Abdoulaye Daouda Diallo nekkub responsable boo xam ne nangu nab kilifaam yilif ko Omar Sané directeur bu modernisation ak équipement rural di responsable APR ci turbine yéen a kaay naan coalition bu bennoo samp nañ seen yaakaar ci Amadou boo xam ne am na expérience te mën na leen ci génn ci yile élection moom directeur de l' agriculture ne coow li coow li mooy responsable yi defub say fexe ba ndam li des Benno Bokk Yaakaar te mooy jàppale Amadou Ba critique yéen kaay naan maan jiital conseil départemental bu Tambacounda moom Mamadou Kassé nee na ndamu Benno Bokk Yaakaar daal booloo dong moonu ko mën a may xam ngeen élection législative jaar na fi xiiroo géeg ŋaayoo gi am ci biir Benno Bokk Yaakaar loolee nag taxoon nañu ñàkk gox goxaan yu bëri te bu ñu boolewul suñu doole mën nañoo dal ci présidentielle yi Moussa Sow njiital COJER ci le point actu naan ndegam Abdoulaye Daouda Diallo moo xool li ko neex ak lu ko naqari ba bàyyi lépp lu mu jàppoon ànd ak président Macky Sall ci dogalam ñun ci boppam nañu boole suñu doole fas yéene jàppale président Macky Sall ci dogalam Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Abdallah Dionne Moussa naan am na loo xam ne buñ ko defee day wor président Macky Sall la du leneen turbine yéene kaay naan maan waxtu wii day waxtu ku ne xool fi nga féetee daal di fay taxaw la moom maire bu Malicounda Maguette Sène ma ngay xam le ni ma nga ànd ak président Macky Sall ci dogalam te fas yéene campagne jël ndam li ci premier tour màgget seen naan ca Malicounda ñaar fukk ak ñaar ciy dëkk-dëkkaan yi nekk ci commune bi daañu ko wër fexe ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bii ñu ne amadu Ba moo am ndam ndax nag Malicounda mooy ñaareelu commune bu ëpp ñu fay yeewoo ci biir ville bu Mbuur màgget naan dina fexe ba askan woowee jox gëdd waaye tam woteel candidat président Macky Sall bii di Amadou Ba l'observateur naan li ngeen war a laaj mooy président Macky Sall lu muy ruumandaat ndax ci ayu bés bee ñu génn fexe na moom président Macky Sall ba giseeg maam booy jaaw laaj sampute sa kan lool candidature yi tamit sakkan lool ci réew réewum Sénégal laas naan man Serigne Moustapha Sy waa PUR daal yenn yennu candidature am l'évidence yéen a kaay naan man Serigne Mbuub tamit candidat la ci élection présidentielle bi moom Serigne Mbuub xalif général bu Medina Baye defal ko ca ñaan lii ko dijee naan man Abdoulaye Sylla bu Ecotra it candidat la woote si ses askan wi dem wuy ko ndakaaru ci boppam jël combat Abdoulaye Sylla bi daal di koy def yosam yéen kaay bi naan maan yàggul dara moom Abdoulaye Sylla day dina génn wax ak askan wi janoog ñoom wax ak ñoom ci candidature am bii laataa amal nañ ko sargal ay ndaw ak i soxna yu nekk ci ndakaaru daal di gën a dëggal candidature ba Abdoulaye Sylla bi réew mi ko di naan man Abdourahmane Diouf it candidat la ma nga naan pare naa ci bépp fànn ngir bokk ci élection le mandat yéen a kaay jox kàddu Seydi Gassama directeur bu Amnesty mel ni ku naan ñi ngi sampi ndënd de waaye Sénégal réew la woo xam ne jaxasoo na lool Serigne Moustapha Amar borom Thiès ci l'évidence yéen a kaay naan mayor solution bi tribune yéen a kaay naan leen allons rek politique daal ko jàppee fi mu ne ci réewum Sénégal doy na waar politiciens yoo xam ne am nañu seen bëgg-bëgg bopp day raar na ci réew mi nu leen neex mel soppeeku nu kàkkatar waxtu wu leen neexee la ñuy wor fu seen intérêt dem la ñuy daal di tàbbi maître Abdoulaye Wade ña mu àndaloon daaw anañu ren turbine yéen kaay naan maan gars yi daal fu intérêt yi sakka neete bari fa dafa mel ni foofee nag la ñuy daal di wër yéen kaay bi dee média bi naan maan balaa ngay dem ma xamal la ni Souleymane Ndiaye njiital SAPCO tàqale na yenn bërëbu fajukaay ca guddoom ak lëndam dugal leen ci leer gannaaw ba mu leen jébbalee ay groupe électrogène ak la muy àndal l'observateur naan ma xamal la ni waaj